man dan maa woo téléphone ne ma dafa am benn sketch bu nu bëgg nga tournel ñu ko yàq Xaadim Njaay ñu wax ba juboo après ñu contacté ko loolu la man sequma ak moom dara man Xaadim ni ko ko jox paaka ne ko rey ma mu rey ma déet si si Aliou li nga wax garaaw na si ko ko jox paaka ne ko rey ma mu rey ma ndax sama noonu la. non xaadim du son noonu xaadim nee nañ sa copain. non non non du copain dee ko dégg nii rek ah lan dañuy liggéey man seexuma moom dara ndax tey fii la taxaw ne man yàq tas sama kër ne man damaa takk takk suuf waaw ne man damaa takk takk suuf te loolu amul. kon xam nga kooku sama noonu la kooku man lu ma ko jàppee noonu laa koy jàppee chaque jour ndax dafa bëggoon tas sama kër kon kooku noonu la koy jàppee waaw ah, noonu la fa demee nag soo waxee te wax xaadim euh, Ndiaye dañ ñu comme ñu mel ni yaaw d'accord ndax xamul tax mm-hmm. daf maa daan xaadim Ndiaye fois lan bëre mm-hmm. dañoo bëre jolof daanu ma ñu bëre fii jour bi am sama baaraam dam billaahi wallaahi taalaahi mooy bëreeg moom benn loxo. léegi nag tey man tant que daanu ma ko du ma am loo ne man damay génn ci bit di dox sax ñu may woowee xaarim yaayee loolu moo ma metti moo. voilà nga bëgg a faj a faj.